dimanche incha allah dañu wax dem élection dimanche bii di ñëw war falaat ki nga xam ne mooy war a jiite réew mi ci juróomi at yi di ñëw ñun amuñ ci benn candidat bu dul président de la république Macky Sall mooy suñu candidat mooy candidat réew mi mooy candidat wu nit ñu baax ñi ndax moo ko fi liggéey moo ko fi def wone ko ñëpp te ci seen bët li ngeen gis ci biir Sénégal yëpp moom la wax jëlee naa bilan du ma wax ci ay taleeg ay pont du ma ko wax waaye fii ci biir Louga lampe yi ngeen gis nii lampe yi du ngeen xool lampe yi moom Macky Sall moo ko fi def dans le cadre du projet promo ville bu lampe yi tàkkee dëkk bi leer xam leen ni Macky Sall la tali bii ñu jaar fii ci bunt kër El Mujib Diop ku ne xam na ni président Macky Sall moo ko fi def dans le cadre du promo ville loolu mooy message bi loolu mooy dëgg. assainissement bi ñu def ci biir dëkk bi nga xam ni léegi jigéen ñi tuuratuñu mbalit tuuratuñu comment on appelle tuuratuñu potit tuuratuñu potit ci mbedd yi tuñ ko loolu président Macky Sall moo ko fi def moo ñu ko defal ñun waa Louga suñu hôpital bii di hôpital Sakhir Mbaye moom moo tax ñu am ay scanner dematuñu Thiès dematuñu Ndar moom moo tax ñu def ci matériel yu ëpp yu mucc ayib ñu ci faju di ci di ci régler suñu problème kon Macky Sall liggéey na fi lu ne ci biir dëkk bi liggéey na ko ci biir département bi dans le cadre du PUDC koku mo jara voteel bu leen kenn feuk bu leen kenn nax